Nakar ak metit moo feeñ ci kanamu chauffeuru clando yi nekk fi ci géejawaay ak li ko wër ñaari fan yi mujj loolu waral ñu wàcc ci mbedd yi ngir mën ko fësal ñu dëgg ma loon nag ab grève ñoom ñile mujj nañ teg lépp ci suuf gannaaw ba leen maire ville bu géejawaay bii di ay Aïdara woowe ci ab waxtaan. defagum nañ pour l'instant jël affaire teg ci suuf parce que nit ku nekk tamit dangay am kilifa te ñun suñu wàllu bopp ay kilifa lañ. te am na loo xam tam bu la ko kilifa ñaanee da ko koy nangul coow li ba mu amee ñëpp gis nañu ne metti woon na mais comme kilifa yi nangu nañu jël seen décision dellu ginnaaw ànduñu ñu ñun ba tey boo xoolee li tàmbalee tey suba yëpp dootoo gis benn élément bu nekk si kaw tali bi kon loolu dañuy jàpp ni ndam la bu ñu gisagum mais nag taxul mu mun a yem foofu coow li dara sababu ko ludul ay fitna yo xamni ñi lee dundu nañ ko ñaari fan yi ci ginnaw ak tak der yi ci benn bataxal bu doon daw jëm ci ñi di yëngu ci li ñuy transport irrégulier manam birum dawal bi ul ak li yoon teural lolu waral mbotayu taxi clando yi nek fi ci dakaaru bi yépp taxaw ngir lank dañuy à un bon moment nous avons comme nous ko de défense plus précisément le commandant brigade bi mu di yi bi mu mais nga Nous avons concernant notre service toujours Maintenant, nag euh, bi en tant que responsable parce que nous avons sama président GIE composé de 37 GIE dans la banlieue nous avons taxaw à ak ay membres vraiment manifester ses mécontentement concernant ci li nga de service voilà ci li nga bi aussi amna bi mu amé commandant bi def limi def yi immobiliser plus de 20 chauffeurs mu écroué len ci des bi ba paré attester len légui nak ñun ñu def li ni citoyen bu nek non la def taxaw sa aussi ci buntu police bi ñuy def dara dem voir le commandant et son commissaire nous expliquer carrément kat dañu def erreur ci note de service parce que concerné wu yéen ñi nga xam que nous ci taxi banlieue yi que, Nous biñu paré ci lolu mu bayyi boy xalé yi ñu japon ba paré attestation yi nga ni permis yi nga attesté comme ñun occasion la ci li nga ni dañ ko dundu. ans ci ginnaw ñu euh, pourquoi pas duñu dem mémorandum le sous-préfet mi nga avons ni commune de aussi Euh, ci la ñu demaat suñu kër toog comme problème bi rek la woon na ca jaar nañ fi ñu war a jaar. ñu gis ni ba tey jii dañ siy jànkonteel ak ay xoxotal tukki si takk der yi waral ñu génn baral seen loxo. ñu yaakaar ne affaire dafay jeex comme ni ñu ko euh, commandant bi promettre woon ak commissaire bi mais leurs éléments yi nga xam ne ñoo neen ci circulation bi tamit di def li nga xamante ni bii mooy vengeance ci li nga xamante ni bii yàlla def na am na ba pare ñu jaar ci média bi ak fi ñu war a jaar. Nous avons ñu doon jaay doole di def li avis de pouvoir ndax euh, élément bu circulation rek le commandement qui xamni mo koy jité té ordre bi mu leen Nous moy ñu bayyi ñoñu ñu liggéey seen liggéey normal bi mu mu nekkat de xamni dañoo gennat ëpp ñi nga ñu duñ ci dañuy ci sous-préfet mi nga xamni ne nañ ko suñu ba ñu buñ fa dem ci préfet départemental bi nga moom tamit bi ñu ñëwee euh, dalal nañu déglu nañu wax nañ ko suñu ay doléance mu ne dina ko jàllale si gouverneur de la région. mu di ab coow loo xam ni commandant centrale bu Géejawaay ak it sous-préfet bu Wakhinane Nimzatt dalal nañ ko bu baax gannaaw ba ñu nangoo déglu ñile mbootaay taxi clando yi nag seen jafe-jafe ak takk der yi lu yàgg la tey métti donte ay gox yu bari dañ ko fay nemmeeku waaye fii ci Géejawaay la gën a wullee

dañ koy arrêté diko laaj ki nga yëpp numu mu tudd kee nu mu tudd ndax lan transport irrégulier loolu nak moy li nga xamanteni ni moo métti suñuy xol te ñun ay ndaw lan jëluñu gaal ah jaayuñu lu ñuy tere ci réew mi defuñu lu ñuy tere. pourtant on pouvait le faire parce que c'est des choses faciles agression yomb na jaay yamba yomb na c'est que y a des risques defuñu ko on préfère gagner le pain à la sueur de nos fronts. si seen gis-gis takk der yi dañuy dundee seen ñàkk si kaw tali bi tay da ngay sol sa gasoil bëgg ñi taxaw ci kaw tali bi ñi leen woy ay policier foo romb buñ la arrêté da ngay joxe 1000 francs do ko jall chauffeur bi day day xey di ñak ay 7000 francs ci kaw tali bi ay 8000 francs dañ koy ñak ci kaw tali bi fo tourner buñ la jappé da nga wara samp 1000 francs doo ko légal loolu lañ bëgg mu dak parce que ñun bañu ñu joxe mais nañu joxe ci yoon. vraiment dañu sonn ci xooñoñal bu ñuy xooñoñal ci stigmatisation bu ñuy stigmatiser toujours. ca ñu bëgg loolu jóg fii ndax bu ñuy wax ci réew gouvernement de rupture di wax na jub jubal jubbanti yaakaar naa ne personne n'est au-dessus de la loi ca tey li ñuy wax corruption di ko wax ger mu ngi au cœur de notre secteur. tey jii namm nañ mbir yi dakk ndax seen liggéey amal na njëriñ askan wi. jàppati nit di ko téye naan ko transport irrégulier ñun loolu lañ soxla wut clandouman bi les risques yi nga xam ne moom lay jël amul kenn ku koy jël heure de crime mën a jëkk fi mu a fi dem social bi amul koy def n'est-ce pas à plus forte raison maintenant say doomu réew def le sénégalais lambda ñoo xam ne dama toutes les couches sociales ñu ngi ci ku jàng ku jàngul ku toutes les catégories ku diplômé ku diplômé pour te dire que c'est un secteur très varié fi mu et qui mérite d'être respecté te boo xoolee ñun si li ñu nekk facteur de développement la buñ ko kenn xeebal ndax mbir la boo xam ne tey buñ doon xaar si état pour mu jox nit ki liggéey munul nekk parce que souvent la l'habitude de le dire euh, état joxuñu liggéey parce que am na loo xam ni ñun ñoo jóg ñafeel suñu bopp. pour lii dakk nag ñoom chauffeur yi ñu ngi woo groupe Sénégal mu gersu leen tey fexe ba gën a sàmm seen liggéey ngir yombalal leen ko. nous la lancer appel aux autorités étatiques nga euh, président de la République du Sénégal son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye lañ et son chef de gouvernement le premier ministre Ousmane Sonko en plus euh, ministre de l'intérieur mi nga xam le ni tamit moo yor force de défense et de sécurité yi euh, tamit ki nga xam du ni secteur de transport di El Malick nous ñu lancer appel daal ne ngir ñu y a une suñu secteur possibilité lañ pour mën ko régulariser ñun ñëpp ñu mën a nekk ci la bonne circulation. ñu xool naka la ñuy def ba li nga xamante ne dañ ni daganul pour ñu def ko ñun ñu daganal ko parce que nit ki boo nee ko bàyyi lii nga nekk da naan ko jàppal ci li parce que xam nga xam na ni Sénégal jeunesse yi bari nan liggéey matewul ndax daanu dajul suuf état mënul jox ñëpp liggéey kon nit ki bu góor góorgóorloo ba jël ay moyam am benn un million wala benn un million cinq cent am jëndee ko particulier di ci daan dooleem di ko dawal état dafa war a ñëw jàppale ko ci loolu muy def ba mu mun cee gis boppam mun a yóbbul ay njabootam mun a yóbbul ay waajuram. ce qu'on demande est simple qu'on nous encadre qu'on nous accompagne accordel ñu au moins ne serait qu'un papier parce que c'est possible ce n'est que par décret écrit et signé lu mu munti doon y a rien de diabolique pourquoi pas mënul nekk donc ñuy dund ay métit di dund ay métit ba démb avant-hier mu am ay vraiment incident yo xamné amna ñu fi lo xamné ne xëy ko mu une grande surprise pour nous tay ji ñi nekk ci garage yi dégg raison pour laquelle ñëpp mer une foule immense s'est levée donc ñu doora di expliquer wu dégg nga doon ñu xamné erreur la ça est là donc bon dañuy japp lolu ñu ci lancer un appel aux autorités étatiques en l'occurrence monsieur le président de la République son excellence. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement qu'ils aient la main mise sur ce problème loolu la leen demandé nous nous inclinons devant eux ñaan leen ñu xam ñun ay doomu réew mi lañu ñun ñoo leen fi tek pour ñu jappal réew mi waruñu faté kenn. ñom nak ñu ngi dundé yaakaar gannaaw dajé bi ñu wara amal ak le maire Ahmed Aidara ni dina ci am taxaway bu gën ba ñu mëna wëyel seen liggéey ci jamm xeex bi mën ñu ne ne jeex na mën nañ ne jeexut mooy li ma la mën a wax rek parce que nit ku nekk am na la nga xam ne bu la taxee jóg da ngay ñaan yàlla am si satisfaction kon satisfaction tey boobu bu ñu ko amee rek daanaka lépp mun nañ ko jël teg ko si suuf ànd ak ñoom ñu bokkandoo ñu liggéey mooy li ma la wax sànq si samay kàddu ñun dañoo ñëw pour jàppale état bi si wàll lu mu bëgg dafa soxla ay jeunes pour liggéey ñun yàlla def nañu ñu wan ko yoon yoon bi mooy lan. ñoo ngi def transport mais transport bi ñu bëgg def loo nañu dafa irrégulier dañoo bëgg ñoom ñu ñëw fekk si ñu jéem ñu jàppale war ñu ban yoon la ñu war a mën a jaar ba lépp tegu si yoon bañu ñu ko yàlla def na na ñu ñëw wuy si maire ndax kilifa bu la wooyee da koy wuy si ndax dafa nekk ñun si gox bi kon woo bi mu ñu woo mënuñu ko ñàkk loo fayda parce que yëg na njabootam li fi xew kon ñun dañ koy wuy si ñun it comme yàlla def na ko doon na maire doon na député am na foo xam ne war na ko fa mën a jooytoo peut-être ñun li ñu ko war a wax dina dem mu yóbbu ko tamit au niveau de l'assemblée parce que assemblée yaakaar naa ni fa la ñuy defee lépp moom bu fa demee posé ko fa lañ ko bëgg dinañu ko sotti kon loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla nañ si yàlla defal jàmm ak salaam rek di leen sant di leen gërëm bu baax a baax yéen i seen teewaay. Euh, ñu ngi ciy am yaakaar parce que bu dul dara c'est une autorité étatique ci doomu réew mi réew mi la euvre na fi également pour xam jafe-jafe yi nga xam ne askanam ñu ngi koy dund donc ñu ngi ci am yaakaar baax gisaguñu ko nag mais on en train d' attendre le temps qu'il vient pour que ñu waxtaan ak moom partager moom li nga xam ne mooy sunu métit